kon ñoo ngi santaat suñu boroom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu moom mi boroom màgg yi di julli di sëlmal ci suñu yenent muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi delsiwaat ci suñuy bind yi ñuy fàttali wante ak yéen ayu bis bu jot ci waxtu wi ci bind yi nga xamante ni dañ koo jagleel jaar-jaar yenent yi alayhim salaam muy qisasul anbiya tey war a nekk suñu fukkeelu yenent ak ñett ginnaaw bi nga xamante ni commencé nañ ko ci yenent yàlla aadam jaar ci yenent yàlla nuux jaar ci xuud jaar ci saalex jaar ci Suayb jaar ci Yaqub ba ni ñu yegsee ci tey suñu yenente fukkeelub ñett muy yenente yàlla Muusa ak Haarun bi nga xamante ni yenente yàlla Yaqub ñëw na Égypte muy Misra mook ak njabootam ak ay sëtam ñu dëkkee Misra waaye li ëpp ci dëkk bi tey ñoom ñoo koy àtte yonent yàlla Yaaqub waxoon naa la dàkkanteel ba mooy lan nan lañ ko doon dàkkantele hmm? waaw Israil lañ ko doon dàkkantele moo tax njabootam gi yépp ñi ñëw ci ginnaawam bu leen yàlla di tudd ci alquran da ngay dégg mu ne yaa bani israil ginnaaw bi yenent yàlla yaquba faato yenent yàlla yuusufa faato alayhi wasalaam mbokk yenent yàlla yuusufa yi ñoom itam faato waaye njabootuk israil gi mu yenent yàlla yaqub bari ci dëkk bi nag ay sëtam ak njabootam mujj dëkkee bani israil ci ay doom ak ay sët ci yonent yàlla yaqub bi ñu demee ba bari ci banu israil buur bu kàccoor ba ñu tombeloon ak jamono muy firawna nekkoon buuru misra ci jamono jooju ragal ak nguuram ci banu israila ne dana daanu mu commencé di leen not di jël seeni alal di leen mbugal ba bés ci bis yi wax nañ ne Firawna dafa tëdd di nelaw bi muy nelaw ba mu yàgg mu gént benn safara bu jógee ko Shaam ñëw lakk këru égyptien yi lakk seen pale yi waaye ñi nga xamante ni ñooy njabootu yonent yàlla Yaqub di waa banu Israil ñoom seeni kër dara jotu leen seeni kër bi maanaa tàkkul deful dara loolu nag jaaxal na firawna bi mu yeewoo mu dem ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy firikati gént ci jamono joojee euh, firawna laaj leen ñu daldi di koy firil gént gi ne ko am na xale boo xam ne moo nar a judd ci bani Israil kooku lay follis ak nguur gi ci moom la nar a jóge bi ñu waxee loolu Firawna Firawna ne kon pexe amut léegi kon li fi des mooy ma jaay leen doole jaay doole gi mooy lan mooy Firawna dafa digal arme bi ne leen recensé leen dëkk bi képp koo xamante ni ëmb na ngeen recensé ko ngeen xool ko bu waxtu ju juram jotee bu juree doom buy góor ngeen rey ko waaye buy jigéen ngeen bàyyi ko ah armée bi commencé di wéyal mbiru Firawna ci di rendi seen doom yu góor yi waaye ñu dem ba jimmi jamono ñu ñëw ne ko ñun day bu fekkente ni rey nañ képp ku judd di góor ah kon day dootuñu amati ku ñuy liggéeyal dootuñu amati ñu ñuy liggéeyal ci suñu tool yi léegi nag ñu ne ko léegi li nga war a def mooy danga war a rey at tëbal am at mu ne waaw kon baax na léegi damay rey at tëbal at at mi nga xamante ni warta rey ci la war a tëbal ci la yenent yàlla Haaruna daal di judd at mi nga xamante ni ci la war a rey mooy at ma ca topp ci la yenent yàlla Muusa daldi judd loolu moo lay wan ne borom bi tabaaraka wa ku kéemaane la bu ñu ko sañoon wax dañ naan yàlla bu bëggoon jàmm konoon at mi Firawna war a tëbal lay juddal Muusa waaye ci at mim Firawna war a rey ci la ne la Muusa di judd te li ma wax dina am ci at mi Firawna war a rey ci la yeneen yonent yàlla Muusa juddu léegi nag yaayu Muusa nan la war a def Muusa juddu na di góor te at bi Firawna dafa war a rey góori Firawna yi di soldat si buñ ko gisee dañ koy rey comme ni ñu reyee ay doom góor yu bari yu ko fi jiitu ci la yàlla wax yu yaayu yenent yàlla Muusa wax yu googu nag moom lañuy tuddee ilham mooy loo xam ne yàlla da koy sànni sa xol muy xalaat yooyu xalaat ba mu mat loolu ilham lañ koy tuddee ci la ko yàlla wax yu ne ko defaral benn genre valise su nga nàmpal Muusa ba mu suur nga daal di ko ciy dugal daldi koy sànni ci dex gi te nag teg ko ci ne ko wala taxaafi wala taxzani inna radduhu ilayki wa jaaciluhu min al mu ne ko te bul tiit ci moom ci ne dana lab ci ndox mi waaye bul jàq ci teqale ko gi muy teqale koog yow yàlla subhaanahu wa taala dina ko wattu te dina ko delloosi ci say loxo comme nim la ko diggee te bu koy delloosi dafay nekk ab yenent inna radduhu ilayki wa jaa'iluhu min al mursalin te xam ngeen ne yàlla tabaraka wa ak digam du wuute lépp lu mu digge da koy def yaayu Moussa daal di jël yenent yàlla Moussa daal di koy teg ci gaal gi daal di koy teg ci biir ndox mi ndox mi daal di koy yenu ngelaw leeg duus yi di koy jay di ko yóbbu ba mu yegg ci pale Firawna waaye bi mu yeggee bañ ko jëlee ibbi ko gis mu nekk lii nekk góor Firawna ne aywa nañ ko rendi comme ay moroomam waaye jabaram ji nga xamante ni ku gëm yàlla la bi mu ko gisee da koo di jël daal di koy bëgg wa alqaytu alayka mahabbatan minni wa li tusnaa ayni waaye Asiya bi mu ko gisee dafa kontaan lool mu daal di wax firawna ne ko bu ko rey laa taqtuluuhu asa an yanfaana aw nattaxidahu walada fii mun nañoo jariñ delloo lool wala sax ñu jafe ñu jël ko mu nekk suñu doom ndaxte maag yow sëy nañ lu yàgg amuñ doom bi loolu amee nàmpalkat yi nga xamante ni ñoo nekk ci pale bi kuñ ci jox yonent yàlla Muusa ngir nga nàmpal ko yonent yàlla Muusa dafay dal di bañ ndax yàlla moo araamal ci ñoom Muusa nàmp ci seeni ween wa xaramna alayhi l maradia min qable fekk bi yaayu Muusa di teg Muusa ci dex gi wax na magu Muusa bu jigéen bi ne ko topp ko toppal kees gi ba xam fan la jëm wa qaalat li uxtihi qussiihi fa basurat bihi an junubin wa hum la yashcuruun bi ndaw si toppee kees gi ba mu dugg ci biir pale bi mu gis ne Muusa nanguwuta nàmp ci kenn ci jigéen ñi nàmpale ci dëkk bi bu ne leen ndax duma leen tegtal kër goo xamante ni day danañ mën a yore Moussa danañ mën a taxaw ci liggéeyam ci nàmpal ko ak jagoo ko te wahum lahu naasixuun hal adullukum ala ahli baytin yakfuluunahu lakum wahum lahu naasixuun ci noonu mu yóbbu leen ci kër yaayu Moussa muy seen kër bi ñu ñëwee Moussa nangoo nàmp ci weenu yaayam kon léegi Moussa delluwaat na ci yaayam mu di ko nàmpal yaayam di ko yar ànd ak nit koy fay allahu kon mooy la ko yàlla waxoon ne ko wala taxaafi wala taxzani inna radduhu ilayki bul tiit te bul jàq dinaa la ko delloosi te su ma koy delloosi yenente lay doon delloosi gu njëkk gi am na mooy yàlla indiwaat na ko ci loxo yaayam yaayam di ko nàmpal di ko yar ñu di ko fay kon léegi muusa nekk na ci suufu yaayam ba mu demee ba jot a fer nag ci lañ ko delloo ci kër Firawna ngir mu yaroo fa bi nga xamante ni yenent yàlla Moussa alayhi dund na ci kër Firawna firawna yar ko ba mu màgg xam ni ñuy liggéeyee waaye waa banu israila itam xam xis Muusa loolu tax ñu bëgg ko lool léegi nag yent yàlla Muusa dem na nekk na waxambaane nekk koo xamante ni ku am kàttan la bés ci bés mu génn di dox ci dëkk bi mu dégg baatu benn waay boo xamante ni moo ngi sàkk wallu di wax naa an jidni yaa Muusa waay waay xettali ma yow Muusa bi Muusa xoolee gis ne ñaari góor la yoo xamante ni ñoo ngi jàppante kenn ki nekk rajulun misri min rijaali firawn mooy ci égyptien yi la bokk bokk ci waa firawn ak wa rajulun ibraaniyun min bani israil ak koo xamante ni ibraani yi la ci waa banu la bokk ci noonu yenent yàlla Muusa gaaw ngir ñëw dimbale ibrani bi ci tooñu misri bi muy égyptien bi di ko tooñ yenent yàlla Muusa daal di mer mu ñëw daal dóor xibti bi wax nañ ne da koo pes mu ko dóoree waa ji daal di daanu daal faatu waaye faatu googu mu faatu nag kenn xamu ko ci dëkk bi ku dul ibrani bii nga xam ne moom la Moussa doon dimbale Moussa bi mu demee ba bakkanam dal mer mi daldi di wàcc mu daldi di jëf ji mu jëf daal ne lii day ci jëfu seytaane la bokk ndax seytaane day noon bu biir la bi loolu amee moom li mu bëggoon mooy dimbale mbokkam mi te du dóor kenn waaye nag dóor na ko dee daal dinay am léegi Muusa jàq na ci la waxee ne rabbi inni dalamtu nafsi faghfir lii fa ghafara lah innahu huwa alghafuru rahim mu ne yow suma boroom man day tooñ naa suma bakkan kon nag jéggal ma yàlla ne ñu daal di koy jéggal nangu ak tuubam ndax yàlla mooy alghafuur kiy jéggale ba boo tuubee mu jéggal la waaye arrahim mooy kiy yërëmaate Moussa continué di dox ci dëkk bi waaye nag ànd ak ragal ci ay agents secrets yu koy topp waaye ragal itam ñu xamal Firawna li mu def ca bés ba ca topp wala ci beneen bis même waa ji doon xeex démb di jotewaat ak keneen ci waa kër Firawna yi Moussa bi muy dox ba mu yàgg déggaat waa ji naan kaay dimbale ma yow Moussa. ba ko Moussa jegee rek waa ji daal ragal moom ci boppam moom mi doon wow Moussa ngir Moussa dimbale ko ragal daal di dugg ci xolam mu ne ko ataqtulani kama qatalta nafsan bil ams yow Moussa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams waaw mu ndax dag ma bëgg a rey comme ni nga reyee woon bakkan démb bi mu waxee loolu nag xëpp bi mooy kii farandoog firawna daal di koy dégg xam ne kon ka dee woon démb muusa moo ko rey mu daldi daw dem ci firawna daal di koy xamal ne ko suñu égyptien bi ñu reyoon démb day Moussa moo ko rey léegi nag firawna daal di génn benn décret daal àtt àtte ne fu waay gis Moussa ci dëkk bi na ko rey bi loolu amee yàlla ne wa jaa min aqsa al madinati yas'a qaala yaa muusa inna almalaa yatamiruuna bik liyaqtuluuka faxruj inni laka min na am benn waay bu jógee ko ca aqsal madina moo ngay dox ñëw ci yeneen ci yàlla Muusa ne ko yow day mbooloo mi muy waa pale bi ñu ngay réunion pour rey la kon nag noo mën a def ba génn dëkk bi def ko nga génn dëkk bi inni laka min annaasixiin man de dama lay laaye biir yent yàlla Muusa gaaw ngiree daw génn misra ba nga xam ne firawna du ko rey waaye ci diggi natt boobu yàlla teg ko mu ñaan ñaan gu am solo mu ne rabbi najjini min al qawmi alzalimin yow yàlla musal ma ci xeet bi nga xamante ni xeetub tooñkat lañ yàlla daal di koy musal yonent yàlla Muusa jublu dëkk bu ñuy wax Madyan Muusa yadhabu ila bilaadi Madyan yonent yàlla Muusa moo ngi nar a dem jëm ci dëkk boobu ñuy wax Madyan mu ne yonent yàlla Muusa noonee la génne Égypte waaye nag xamul fan la jëm waaye bu sukkandiku ci yàlla tabaraka wa taala sàkku ak mucc ci yàlla yàlla musal ko waaye sàkku ndimbal ci yàlla yàlla daldi koy jubal daldi koy orienté ci mu dem Madyan waaye ci biir tukki boobu yenent yàlla Muusa daj na ci coono bu rëy ba wax nañ ne sax ci xobi garab yi ci àll bi la doon lekk ak ñax mi muy dox di dox ba ñëw ci benn teen teen boobu ay nit ñu baree nga fa taxaw bëgg feesal ndox ca la ñuy wëgg ngiree seen jur yi daal di mën a naan waaye fi góor ñi taxaw di root yent yàlla Muusa dafa gis ñaari jigéen ñoo xam ne ñoom ñoo nga sori teen bi beru nale ngir bañ a jaxasoo ak góor ñi ngir bu góor ñi naa nandalee seeni gàtt ba pare ñoom ñu ñëw bu fekkente ni ndox mi des na ñu daal di jël bu desul itam ñu xaar ku leen rootal waaye yenent yàlla Muusa daldi di yéemu ci loolu waaye góor ñi ba ñu rootee ba pare ah dañoo daldi tëj teen bi yenent yàlla Muusa ñëw ci ñaari soxna yi ne leen waaw yéen lan mooy seen mbir lan ngeen di taxaw fii lan moo tax ngeen téye fii seen jur yi te demu leen nàndali ñu ni ko ñun dey duñu nàndal suñu jur lu dul ne góor ñi dañoo nàndal ba pare te ñun dey ñu néew dool lañ waaleykum salaam comme ni nga ko gisee te suñu bàyyi day nekk na góor goo xamante ni góor gu mage la ci ay at amul kàttan ci liggéey ñun ñoo koy sàmmal ay gàttam bi loolu waxee bi ñu soxla ñu waxee loolu yenent yàlla Muusa daldi yëg ak yërmande ci ñoom mu daldi xool teen bi gis ne gaa yi delloo nañ xeer bi nga xamante ni moom mooy ub ci teen bi te xeer bi wax nañ ne benn nit rek mënu koo yëkkati ay mbooloo mu bari ci ay góor ñoo ko mën a yëkkati waaye ànd ak loolu yonent yàlla Moussa bu ñëwee dafa dikk xeer bi daal di koy teg fële jigéen ñi ñëw daldi di mu rootal leen mu jëlaat xeer bi daal di koy dellawaat ci teen bi daldi nag dem toog ci benn ron garab ngir noppalu ci coono bi nga xamante ni moom la daj waaye xam ngeen ne Moussa daa iman da daan jokkoo ak boroomam daanul bàyyi boroomam benn yoon ci benn jamono ci foofu mu toogee ci garab gi rek mu yëg ne war na jox jokkoog boroomam ci la ñaanee ñaanam gu am solo ga rab bi inni lima anzalta ilayya min xayrin fa faqir yow yàlla day lépp loo wàcce ci man mu jóge ko ci yow doon aw yiw loolu de yitte woo naa ko yow yàlla ku ko ku ko aajo la bi mu ñaanee ñaanam gi rek borom bi tabaraka wa taala daal koy wuyu ci saa si ndax képp ku sukkandiku ci yàlla yàlla dana la doy ci la ñaari xale yi daldi dellusee ci yonent yàlla Muusa daldi koy laaj lan moo tax nga toog fii waaye walla lu jiitu loolu ñaari xale yi bi ñu dellusee ci seen baay seen baay laaj leen waaw lu tax tey ngeen gaaw a ñëw te dangeen ngeen daan yéex a ñëw ñu daal di koy xibaare xibaar bi nga xam ne moom la leen yonent yàlla Muusa defal seen bàyyi nekkoon góor bu baax nekkoon ko jaamukatu yàlla mu wax kenn ci ñaari doom yi ne ko demal nga wool ma xale bu góor boobu yàlla ne fa jaathu ixdaahuma tamshi ala istihya qaalat inna abi yadcuuka li yajziyaka ajra ma saqayta lana فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين buur moo ngi nettali ba ci suuratul qasas mu ne yonent yàlla Muusa fi mu toog fala ñaari fala kenn ci ñaari xale yu jigéen yi ñëwalee ñooñ ci ne kenn ci ñoom dikkal na ko di dox waaye ànd ak kersa bi mu ñëwee ne ko yow suma baay yow xale bu góor bi sama papa day moo lay woo ngiree mu fay la teraanga gi nga ñu defal teraanga gi nga ñu defal ba tax suñu jur gi gaaw a naan tey ñu gaaw a dellu ci kër gi sama papa nee na nga ñëw mu fay la ko ah yenent yàlla Moussa daal di am mbégte am kontante ndax yàlla wuyu na ñaanam ci lu gaaw ñaan gi mu ñaan léegi ne rabbi inni lima anzalta ilayya min xayrin faqir yàlla wuy na ko teral ko dindi ragal gi ci moom bi mu yegsee ci góor gi góor gi ne ko laa taxaf bul am benn ragal bul am lenn looy tiit bul am lenn looy jàq yow day mucc nga ci tooñkat yooyu waaye góor gi daldi koy proposé ne ko dinaa la may kenn ci sama ñaari doom yii waaye nag danga may liggéeyal danga may sàmmal juróom ñetti at waaye soo ko defee fukk itam loolu ci yow la rek wa ma uridu an ashuqa alayka sa tajiduni insha allahu min alsaalihin kon nga gis yonent yàlla Muusa alayhi salaam can gi mu jabaram fukki at la la sàmm fukki at ñu may ko soxna kon yonent yàlla Muusa léegi sàmm na fukki at yi ko góor gi waxoon léegi nag Moussa yaudu ila misra Moussa mu nga war a dellu jóge ko Madyana jëm Égypte waaye itam ci foofu war na wax ak boroomam Moussa namm na misra muy Égypte namm na yaayam namm na séeram yam fa bàyyi mu tànn nag ab rendez ngir dellu ca fa nga xamante nii moom mooy dëkk cosaanam mu génn Madina ci guddi goo xam ne guddi gu lëndëm la guddi gu sedd la waaye bi ñu ñëwee ba ci côté montagne bi ci ko côté ndeyjoor wa bi bi ahlihi anasa min bi tuuril ayman ci la yonent yàlla Muusa demee ngir xool yoon wu ñu mën a jaar wala dina gis loo xamante ni dina leen mën a orienté ba ñu gis yoon wi waaye ci noonu la yent yàlla Moussa gis aw sawra wuy tàkk ci côté montagne bi mu wax njabootam gi mu àndal te mooy soxna si ne ko toogal fii nga xaar ma ma ñëw man dey sawara si amaana ma indi ci xal wu ñu jaaroo wala ma indi ci loo xamante nii dina leen protéger ci sedd bi ci noonu la yàlla Moussa dugge ci xur wi nekk ci diggante ñaari montagne yi sukkandikoo yetam wa ba mu ñëwee ba jege sawara si daldi gis sawara si di tàkk tàkk tàkk bu rëy waaye si mbéjteel borom bi tabaraka wa taala daldi wax ak moom ci ci bërëb boobu Moussa jege na garab gi borom bi tabaraka wa taala di wax ak moom di ko woo ko inni ana allahu rabbul alamin yaa Muusa inni ana allahu rabbul alamin mu ne ko e Muusa man may yàlla boroom mbindeef yi Muusa daldi ragal daldi tiit mu delluwaat beneen yoon ci sawara si yàlla daldi di koy woone ko fax laana alayka innaka bilwaadi almuqaddasi toi yàlla ne ko summil sa dàll yi yaa ngi ci bërëb bu sell bu laab bi summil dàll yi nga daldi màggal bërëb bi bërëb boobu moo ngi tuddoon Tuwa waaye wa ana xtartuka fastami lima yuuxa mu ne ko mën yàlla maa la tànn jox la sama lettre ngir nga jottalil ma sama woote ko nag déglul li nga xamante ni dinaa ko waxi ci yow Muusa innani ana allahu laa ilaha illa ana faabudun mu ne ko man de man maay sa boroom man may yàlla amul benn buur bu ñuy jaamu ci dëgg wala amul lenn lu ñuy jaamu ci dëgg ku dul boroom bi tabaraka wa taala innani ana allah laa ilaha illa ana kon nag faabudun na ngeen ma jaamu waaye ngeen sellalal jaamu gi ñeel ma man yàlla waaye wa aqimi salaata li dikri na nga taxawal julli ngir fàttaliku yow Muusa ci la bakkanu yonent yàlla Muusa dalee mu daldi wax ak boroomam beneen yoon wala yàlla ci boppam moo waxaat ak moom beneen yoon ne ko wa ma tilka bi yaminika yaa Muusa ne ko waaw Muusa lii nga yor ci sa loxo ndeyjoor bi day lumu Muusa daal xam ne am na occasion ngir wax ak boroomam subhaanahu wa taala mu boroom bi laaj ko lan nga yor ci sa loxo ndax loolu yar la bu yàlla nar a yar yenent yàlla Muusa avant mu koy yónni mu préparé ko ngir bés bu demee ba ci kanam Firawna yet bi soppeeku jaan Moussa du daw Moussa ne ko ah lii day yet la waaye dama ci sukkandiku su may dox atawakkau alayha ñaareel la mooy wa ahushu biha ala ganami ci lay bàccel sama gàtt yi xobi garab yi ñu mën da lekk waaye itam mu ne ko waliya fiha maaribu uxra am naa ci yeneen njëriñ ak yeneen aajo borom bi tabaraka wa taala daldi ne ko sànnil yet wi yow Muusa soo ko sànnee day dina soppeeku nekk jaanu ñàngoor bu mag di dox ci kaw suuf waaye di wan lépp lu nekk ci kanamam bi yenent yàlla Muusa sànnee yet wi mu doon jaan rekk yàlla nee na walla mudbiran mu yent yàlla Moussa ne bëxër nit di daw yàlla ne ko walam yu aqib ya Moussa aqbil wala taxaf innaka min al aminin ne ko Moussa bul daw ñawal ñawal ñawal nga jël sa yet wi ndax gis nga foofu bu yàlla préparé wul woon Moussa bàyyi ba mu yegg ci kanam Firawna mu ne ko sànnil yet bi Moussa yegg ci Firawna sànni yet bi konoon moom mooy njëkk a daw moo tax yàlla da koo préparé avant muy dem ci Firawna moo tax fii bi mu sànnee yet bi rek ne ba xër ñi daw yar bi doon jaan mu daw yàlla ne ko aqbil wala taqaf ñëwal bul ragal innaka min aminin waaw kon loolu dañ ciy déggee ne kon nit ki dañ ko war a defal formation ci lépp lum nar a dugg bii yet bi nekkee jaan borom bi tabaraka wa digal ko ne ko jëlaatal yet bi yet bi Moussa jëlaat ko mu nekkaat yet beneen yoon yàlla ne ko jëlal sa loxo ndeyjoor nga daal di koy dugal ci sa poosu yére bi wa adxil yadaka fi jaybika taxruj baydaa min gayri suu jëlal sa loxo nga daldi koy dugal ci sa mbagg Moussa daal di jël loxoom dugal ko ci mbagg mi bi mu ko génnee mu daldi weex tàll mel ni galaas weex tàll yàlla ne ko delloowaat ko mu delloowaat ko génnewaat loxo bi melaat na mu meloon yàlla ne ko nag ñaari kawteef yii muy ñaari miracle yi muy loxo bi ak yet bi moom ngay yóbbu ci firawn soo demee nga woo ko mu ñëw jaamu borom bi bañ koo bokkaale ndaxte moom day dafa beew dafa jéggi li nga xamante ni moom mooy alxadd ci bokkaale ak yàlla ak mbugal gi nga xamante ni moom la doon mbugal waa banu Israil yonent yàlla Muusa bi ko yàlla waxee loolu yonent yàlla Muusa tiit ne ko yow yàlla man de xam nga ne inni qataltu minhum nafsan fa axaafu an yaqtuluun xam nga man de rayoon naa ci ñoom bakkan léegi nag damay bañ a dem dellu ca dëkk ba ñu rey ma kon nag fa arsil maaya mu ne ko kon léegi yebalal ànd ak man sama mbokk mi di Haaruna mu dimbale ma waaw inni qadaltu minhum nasan fa aqaaf an yaqtuluun qaala kallaa fadhaba bi ayatina inna maakum mustamiun an arsil soxloo ma aaya boobu de wa axi Haaruna huwa afsaxu minni lisaanan fa arsilhu maaya ridan yusaddiquni inni axaafu an yukadibuun mu ne ko yónnil sama mbokk mii di haaruna mu ànd ak man ndax huwa afsaxu min nii lisaanan moom moo ma gën set làmmeñ moo ma gën a fasaxa làmmeñ waaye moo ma gën a mën a leeral ci loolu la yàlla yónnee haaruna moom itam def ko yonent digal ko mu ànd ak yonent yàlla Muusa ñu dem ca Firawna Moussa yaqifu amaama Firawn léegi borom bi tabaraka wa taala jox na Moussa kaawteef yi ngir mu war a dem ci Firawna daldi di koy waar yonent yàlla Moussa ak Haaruun ñëw nañ ci Firawn ca pale ba bi ñu ñëwee ñu ne ko inna rasula rabbil alamin ñun dey ñaari yenent yu jóge ko ci sa boroom wala ki jóge ko ci boroom mbindee fi lañ liñ bëgg mooy fa arsil maana bani israil nga libéré waa banu israila yi jox ñu leen li yacbudu rabbahum ngiree ñu jaamu seen boroom waaye bu leen mbugal bi ñu waxee loolu firawna bëgg a tourner bi commencé di fàttali Muusa ne ko waaw xanaa du yow yaa fi nit bërki démb yent yàlla Moussa ne ko loolu day duwoo duwul woon sama jubluwaay wa qatalta nafsan déedéet wa faalta faalataka allati faalta wa anta min alkafirin qaala faaltuha idan wa ana min addallin firawna musa Moussa woo firawna ci jaamu yàlla moom dongo di ko xamal ne ko kaw kawnu bii ñu nekk benn boroom moo ko moom mooy allah subhanahu wa te moom yàlla moomu mooy ki nga xamante nii mooy yeyoo ñu jaamu ko moom dong mooy yeyoo ñu topp ko bi Moussa waxee loolu Firawna wax Moussa ne ko indil ma preuve buy seede ne yow de ku dëggu nga ci li ngay wax fekk discussion ba gën naa gudd loolu Moussa daldi jël yet wi daal di koy sànni mu nekk jaan ñàngoor gu rëy rëy rëy di dox mu jël loxoom daal koy dugal ci poqataanu ci poosu mbubbam bi daldi koy génnee fa idaa hiya baydaau linnaadirin yàlla nee na mu nekk loo xamante ni lu weex la ca ñu koy gis firawna ne Muusaa day kon léegi am njabarkat la bu xam njabar njabarkat bu mokkal njabar ndax lii mu def fii yëpp njabar kese la Moussa mii dafa indi njabar gi ngir génnee leen seen suuf seen dëkk bi dafa indi njabar gi ngir not leen ci njabaram Firawna daldi wax Moussa ne ko léegi tànnal bis boo xamante ni dinaa ci dajee njabarkat yëpp ñu ñëw jàkkaarloo yow Moussa ne ko kon léegi nañu jël bisub iid bi muy bisub gi ndax mooy bis bi nga xam ne ci la waa banu israila yëpp di daje nit ñi ñëpp fa la ñuy dajee jóge ko ci bépp gox ngiree ñu mën a ñëw teewee lan moo nar a xew diggante njabarkatu firawna yi ak Muusa alayhi salaam ba bis ba jotee njabarkatu firawna yi ñëw nañ ànd ak confiance ci ne tey ñoom ñooy gañe Muusa dañoo waat sax ne wa qaalu bi izzati firawna inna la nahnu alxaalibuun dañoo ngi waat ci màggaayug firawna ne ñun tey ñun ñooy gañe bi ñu amee bi loolu amee ñu ne Moussa sànnil sawyet Moussa ni leen déedéet alqaw ma antum mulquun yéen kay sànni leen rek li ngeen di sànni yàlla ne fa alqaw xibaaluhum wa isiyahum ñu di sànni seen buum ya ak seen yet ya palaas bi yëpp daal fees dell ak ay jaan ak ay mbott ak yu kenn xamut ci la yonent yàlla Muusa xaw a yégee ak ragal yàlla daal di koy wax yu foofu ne ko laa taxaf innaka anta al yow Muusa day bu ragal ndax yaay kiy kawe tey yaay kiy gañe wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sanau innama sanau kaydu saaxir wala yuflixu saaxiru xaytu ata borom bi tabaraka wa taala ko ne ko sànnil sa yet wi mu soppeeku jaanub ñangoor Musaa daldi jël yet wi daal di koy sànni mu nekk jaanub ñangoor daldi di wann mbooleem yet ak buum yi nga xamante ni njabarkat yi sànni woon nañ ko nit ñi di gis ay jaan ak ay mbott ak yi kenn xamut ah bi loolu amee nag njabarkat yi ci seen bopp nga xamante ni ñoom ñoo mokkal njabar xam ne lii du ak njabar xam ne Moussa mi yenent yàlla la bi yàlla ko yónni ñu xam ne njabarkat du jëriñ dara ñu xam ne lii kàttanug yàlla mi am kàttan la ñoom ñëpp ñu daal di rot daal sujjuut ci kanam ci kanam yenent yàlla Moussa daal tuub daldi gëm yàlla tabaraka wa taala moo tax ca seen wax ja dañ ne amanna bi rabbil alamin rabbi Muusa wa Haarun bi loolu amee firawna kon am na defet defet bu njëkk bi mooy lan mooy njabarkatam yi mu jëli woon yaakaar ne danañ jàmmaarloog Muusa toroxal ko njabarkat yi ñoom xam nañ ne lii du njabar ñaareelu defet bi mooy njabarkat yi bi xamee ne lii du njabar dañoo sujjootal yàlla daldi gëm yàlla loolu gën a toroxal firawna firaaw ne inna hada la kabirukum alladi allamakum sixra yéen kat Moussa mii mooy seen entraîneur bi leen jàngal njabar kon nag fala sawfa taalamuun xal si ngeen a xam la uqatianna aydiyakum wa arjulakum min xilaaf thumma la usallibannakum ajmain ci beneen laay mu ne wala usallibannakum ajmain suratu taha mu ne dinaa leen daaj ci ngelawu tàndarma yi danaa dagg seen loxo yi dagg seen tànk yi ci jàllawle su boobaa ngeen xam ne man maay buur waaye gaa yi ngëm yàlla dugg na ci seen xol ngëm yàlla dugg na ci seen xol càkk yi yàlla dugg na ci seen xol gaa yi ne ko faqdi ma anta qaad innama taqdi hadihi alxayaat addunya inna amanna bi rabbil alamina rabbi musa wa haarun wala inna amanna bi rabbil alamin gaa yi ne ko yow day defal rekk dogalal li nga war a dogal ndaxte yow sax dogal ci àdduna la yem innama taqdi hadihi alxayaat dunia ñun nag gëm nañ yàlla mi nga xamante ni moom mooy borom mbindeef yi boo demee ci beneen saar mu ne gaa yi dañ ne ko laa dayra inna ila rabbina munqalibuun garaawul ndaxte ñun boo ñu rayee ci yàlla lañuy ñuy dellu ci noonu la firawna digalee armée bi ñu daal jël njabarkat yi daldi dagg seeni loxo daldi dagg seeni tànk daldi leen rey loolu mooy li nga xamante ni moom la firawna daal di dogal bi nga xamante ni loolu am na léegi borom bi tabaraka wa taala subaa ngi gudd de borom bi tabaraka wa taala waa banu israil ñoo ngi war a génn misra borom bi nar a lawel firawna ànd ak loolu lu jiitu loolu borom bi tabaraka wa taala dafa wàcce bekkoor ci dëkk bi bekkoor bu metti waa banu israila ñëw ci Muusa ne ko ñaanal ñu yàlla mu yëkkatil ñi bekkoor bi suñu ko yëkkatilee dinañ ko gëm borom bi tabaraka wa taala yëkkati beekoor bi ci ñoom taxul ñu gëm ko borom bi tabaraka wa taala bi ci ñoom taxul ñu gëm ko borom bi yónni ci ñoom ay njéeréer njéeréer yi ñëw di lekk lépp lu ñu bay di lekk seen garab yi di lekk seen meññant yi ñu ñëwaat ci Muusa Muusa ñaanaat yàlla waaye taxul ñu gëm yàlla yónni ci ñoom ay mbott seen kër yi yépp fees dell ak ay mbott ñu ñëwaat ci Muusa Muusa ñaanaat yàlla yàlla yóbbu mbott yi waaye taxul ñu gëm yàlla tabaaraka wa taala yónnee leen ay teeñ waa dëkk bi yépp teeñ seen néeg yi teeñ seen kër yi teeñ seen yére yi teeñ seen bopp yi teeñ ba fu ñu toog ñoo ngi wokkatu waaye yeneen yàlla Muusa ñaanaat borom bi tabaaraka wa taala loolu taxul ñu gëm fa arsalna alayhim altuufaana waljarada walxummala waddafaadica waddama ayatin mufassalat borom bi nee na bi loolu amee ginnaaw teeñ yi mu daldi soppi seen ndox mi mu doon deret robinet boo ubbi rekk ndox ma cay génne deret lay doon teen boroot ndox ma cay génnee deret lay doon ñu ñëwaat ci yonent yàlla Muusa yàlla Muusa ñaan waaye taxul ñu daldi gëm ci la yonent yàlla Moussa jotee ndigal ci boroomam tabaraka wa ne ko moog waa banu Israil nañu génn dëkk bi bi nga xamante ni yonent yàlla Moussa génn na Firawna moom itam daal génn daal di leen di topp ak armeem bi nga xamante ni muusa ak ñi mu àndal ñëw nañ ba jub géej gi dégg nga Firawna ngi taxaw ci seen ginnaaw ak armeem topp leen ñi ànd ak yonent yàlla Moussa daal di ko yaa Moussa inna la mudrakuun ñun dey danañ ñu jot ndax géej gaa ngi nii ci suñu kanam firawna be armeem ñoo ngi ci suñu ginnaaw yonent yàlla Moussa cag yaqiin ga cag dëgër ga cig njàmbaar ga mu ne leen kalla inna maaya bi sa yahdiin déedéet ñi dey duñu dab man dey maa ngi ànd ak yàlla suma boroom te dinañu jubal ci la yàlla tabaraka wa taala Muusa mu ne ko dooral sa yet bi ci kaw géej gi fadrib bi asaaka al bahra ne ko dóoral yet wi ci kaw géej gi fanfalaqa fa kaana kullu firqin ka tawdi al azim yàlla nee na Muusa daal di yet wi ci géej gi géej gi daal di ci fukk mbedd ak ñaar waaye mbedd bu ci nekk dafay mel ni ab montagne loolu kàttanu borom bi la tabaraka wa taala Moussa noonu la jàllee ci géej gi waa banu Israaïla itam daal di koy topp léegi Firawna gis na ne Moussa a ci digg géej ga mu daal dàq ay fasam mook armeem ñu daldi ñëw ba dugg ci biir géej gi arme bi daal di dugg bi ñu ñëwee ba tolloog digg géej gi gis ne la Moussa weesu woon léegi doon na ndox ñu daldi di geesu seen ginnaaw ne ñëw ngay tourner gis na foofu itam doon na ndox léegi lab moo ci des alkaande moo ci des firawna soog ni dafay gëm yàlla yàlla nee na xata ida adrakahu algaraqu qaala amantu annahu laa ilaha illa alladi amanat bihi banu israil wa ana min almuslimin yàlla nee na ba nga xamante ni lab gi ñëwal na ko moom firawna mu nekk ci digg géej gi mu xam ne tey jii du baax tey ji lab rekk tey ji faatu rek yàlla nee na qaala amantu la laa ilaha illa alladi amanat banu israil ci la ne man day maa ngi gëm amul benn buur amantu billadi aman حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل mu ne gëm ne amul kenn ku ñuy jaamu kurul ki nga xamante ni moom lawa waa banu israila di jaamu yàlla ne ko déedéet al aana wa qad asayta qablu wa kunta min al mufsidin doo ñëw fii ba dee desale nga ne dangay tuub te nekkoon nga lu li lii bokkoon ci yàqkat yi ci noonee la ko borom bi wa taala labalee moom firawna mook armeem borom bi tabaraka wa taala musal yenent yàlla Muusa ak ki nga xamante ni moom mooy Haarun ak waa banu Israil ginnaaw loolu bi nga xamante ni yàlla musal na Muusa ak waa banu Israil ñoo mucc daal génn ci ndox mi am na yeneeni xew-xew yu bare bare bare bare yoo xamante ni des na ci dund gi lu ci mel ni jaamu ga nga xamante ni waa banu ñoo ñooñ ko doon jaamu yëkk wa lu ci mel ni yenent yàlla Muusa nag wi nga xamante ni moom lañ rayoon ci banu israil ngir mu seede borom alal jooju ñu rayoon ci banu israil waaye itam dundu yenent yàlla Muusa ak Xadir yooyu yëpp da ngay gis ne des na ci dund gi kon du xaj ci benn darsu dañuy yemale foofu darsu bi ba darsu bii di ñëw incha allahu rabbi su ko defee ñu commencé ak yéen ci jaamu gi nga xamante ni waa banu israil ñoo ngi ko doon jaamu yëkk wi wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain